Hello there, welcome, and this is the Fatu Network. Apparently, it is no news that the curfew imposed by the President, Adam Barrow, restricts or forbids people from going out during the hours of 10 p.m. to 5 a.m. Meanwhile, we are right here in Bakau today to talk to married people and see how the curfew has impacted their marital lives. Please do join us. Curfew bi baax na ndax it na jigéen ñi dimbali na euh, njaboot gi parce que da nga am sa nga togal ko agn danaka bala ñew danaka mu sedd mba fek mu nelew mba njabot gi nelew waaye alhamdulilah léegi coronavirus bi mom wax yalla soxla wun ko de waye baxna tuti ci côté parce que da ngay am sa borom kër nga préparer yépp pour war ko xaar su ñëwee ne maa ngi ñew sama système wo mba mu jël téléphone tek ci nopam ne allo allo allo te dara te xam nga lolu yépp ku ne xam nako waye nak comme lolu amna njaboot gi gis nañ seen papa borom kër gi borom jabar ji day gis jëkkëram ñu toog naayis reer naayis xale yi daw ak seen papa seen yaayit xappi mun a jaagar jaagar def lu ba mu baax jël fer yi teg ci kawam waddu sër ba mu baax mu ñëw xam ne jëkkëram moo fi nekk tey xale yit mun a xappi waaye bu njëkk boo toogee toggal sa jëkkër reer balaa ñëw daanaka xappaas ay xaaju guddi nga nelew ba yuut bala ngaa ñëw du la tal soo waxee nga naan danga maa faale wut waaye danga maa fàtte fekk na yow yaa dem heure ba nga war a ñëw ñëwoo ko kon loolu kon toppatoo du ca mën a am waaye soo toogee ci biir néeg bi gis jigéen la muy def ak borom këram kon su ñëwee da koy defaral ba mu baax dina def cuuraay dina def feram yu baax na seram bu normal fas yéene jaamu yàlla ndax loolu kat jaamu yàlla la kat yor sa borom kër nga nekk ak moom ci biir néeg bi di daw kuusi lu mu bëgg nga daw balaa wax sax nga daw yëkkat sa jëkkër nga uuf ko normal nga sang ko ba mu set nga defaral ko ba mu baax seetal ko yére bu rafet nga solal ko raxasal ko tànkam ba mu jeeg cuuraay liy ginni fer yi ginni nga teg pëtu cuuraay dara bu weex yaa ngi tege ay fitting miñ ci néeg bi kon góor du dem fenn waaye nag léegi loolu moo tax Covid bi moo tax léegi yëpp normal waaye nag corona bi su ñu ñaan ci yàlla mu génn fi waaye buñ génnee góor ñi li nu ñam nag buñ ko bàyyi de nan continuer ca lañu lañ doon def bu nu bàyyi bu nu bàyyi teel a bi teel a tëdd composé ak seen jabar xalé yi mën a mu neex ñu mën a am seen jaam doom yi mëna a barkeel fa ani yirwa kadi ye a lo niŋ kewol ka findi ka musol fili je suo kono lo wo ma beteya so futu ñooma fulo al ñanta siila ñoo kaŋ wala le be yiruwa be wala to kuo bee be wala to ñiŋ ko fi e eh, niŋ ko wo siifaa aka wo keno fo ka keni musol sindi ñoño kan musol ni la kewol nte de pour nte la miro mbe la village la ko hani ya bula je fanga e me fan donc musol ni kew mu kewol ke la musol mara kat ya lo ke dol bije je eh, ya lo rek eh, ala ma ala ya tunye rek ibe janni ka siman e ba bula muso ya nga programme de soto jang nga programme dole soto jang <coughs> so iba je la ko ibita woto nin kew findita suo kono ibukaje buka fo aɗum kewle sembo warta musoti ko kusi fal na nata na ka ɓe diyamula e ase wayla kan isaje kol be si jakase bar sa nin kewol nin dimbayal be ka siño kan ani muso a ndewde woen ko kuwo kuye o saabu duniya kono wo kuwo en depattaɗo yawnde sa nde dal wole mum nammiro tijeede aɗum mbeɗa filaji nafango ni a tara fo han kabi wo kuusi fa si sotono han sañi e ko veni ya tuje folom foñaatu ndax ten o'clock pour góor tëdd métti na waaye neex na tam métti na waaye neex na ndax ndaxte euh, yaakaar naa ñun jigéen ñu war a seere si néegi sëy yi da ngay am sa jëkkër mu wàcc war a gérer si bi jàmm ñëw nga wan ko loo xam ne nii macha allah day xam ne am na koo xam ne mu ngi ut loolu si biir néeg bi su génne si biti su ko amee day sant yàlla waaye nag tëdd guddi moom damaa ñaan la ñun jigéen ñi sa jëkkër su wàccee toppatoo ko teg yaa ko ba nga xam ne da bëgg a génn sax si buntu néegam seeka jigéen di ko woo muy oyi téléphone bi. waaw like impact bi am um, to be man ten bi tamit favor wood ma pour tëdd time boobu noonu la gis ne man su dee maybe bi eleven twelve yooyu noonu tane na xam nga waaw waaye teel a tëdd yooyu noonu daal ñun nekkuñ si yooyu noonu xam nga yeah. naa ne damay dem doxantu dem marché wala dama dem jëlit di wala dama dem meeting lolu mom léegi yëpp arrêté ndax kenn du am foy dem bo génné 10 heures du matin da ngay dugg sa kër par force <laughs> mais ma way mo wax <laughs> ku ci tok sa biir nek dang koy séré ndax bo génné bo ñëw di nga wéru ta feebar fu mu nek ni bo téye jaxaa si biti boo ko sa bi sa jabar yëpp ay ñàkk kon goñu ñi ni wax tok leen seen bi nek ngeen séré seen jabaré dem fenn amatu rër ba mbax tok xolantélé n'est-ce pas waaw macha allah kontaan naa ci bu baax a baax ndax man moom sama jëkkër moom ay takkaloog lay wàcc wala sept heures su wàccee du génn naa nekk ba ëllëg si guddi incha allah ba ëllëg si suba daal. waaw te nag waaw boobu tamit dégg dégg to be honest contribute na dara understand because jàmm bi gën na moo yooku xam nga diggante bi gën na rafet xam nga xale yi tamit am nañ time boo nit xam nga time buñ nit diggante bi nii xam nga so. nekk na lu nice tamit si side boobu noonu waaw loolu ma ngi koo sant yàlla tamit torop <laughs> waaw ak yooyu yee yëpp a ngi jooli <laughs> Well, what an interesting discussion we had there. Uh, I hope you guys have learned one or two things from the discussion. Reporting for the Fatu Network News Review, I am Fatu Kamara.